sëñ bi di leen tërbie tërbie gu metti bu bu dee ñi ma tudd moom àggoon na ci ne leen ñam wu fi ñëw te neen yéen bokku leen ci sëñ Thierno nee na sëñ lu nee na daanañ xiif a xiif ba ba ba di jaaj ji nu ñu koy waxati ab jaañ def ca ndox di di ko naan waaye nag léeg sëñ bi woolu leen jël daakaane xooj ko jox leen ñu naan xam naa kon jàngi bi ñuy lekk tax foofu ama solo ndax bu àggut nit mën na koo roy alko wax ji day àgg waaw day àgg ba ma sëkk sëñ bi ba cëg bi ña ña nga ca liggéey ba su su guddee dañuy fanaanee naafil la ak a sëñ bi dey daan na tur loolu nag daal mel na léegi moom xewi na man sëriñ si gisatu ma ñuy joxe tur sëñ bi joxe ay tur bokk na ca loo xam ne sëñ Thierno Galangal moo ma ko nettali sëñ bi ko joxoon ñooñu bàyyam ca la bokk moom it bàyyam jox ko ko kon bokk na ca loola am na nu ñu jànge alxuraan ci juróom-ñaari xaaj yu ànd ak tur dog boo jàng ba noppi bis bu nekk am na looy sikar am na ca aw tur woo xam ne benn la benn tur benn baat dong la gaaw lool sëñ bi joxoon na leen ko bokkoon na ca la la mu leen joxoon secret bu ñuy tuddee sayful awliya sayful awliya nga xamante ne ah ngannaay la xam naa ngannaay la ndax bu ñu demee ba soxla ko ban koo jëfandikoo kon ñoom am na beneen boo xam ne secret boo xam ne mu safaa joxoon na ko kenn ci mag ñi fekk mag mooma sëñ Tuubaa joxoon na ko nga xamante ne kon sëñ bi kon kon kon foofu tomb boobu li mu fi am solo mooy Cheikh Moustapha jàllale na li ko sëñ Tuubaa joxoon joxoon na ko mag moo xam ne fekk na ko mu am ko mag ma ne ko sëñ sëñ bi joxoon na ma ko kon moom jàllale am na waaw waaw ndax ndax buñ jàllale wut murid gi day màggat de ñaata millions at moo de ci àdduna murid gii ma gis mënut a àgg foofa murid gii ma gis mënut a àgg million at million at ci kanam bari na suñu bi de million at lu fa àgg màggat boo yeesut te tur yàlla yii moo taxoon yëf yee di yees. buñ ko téyé rek joxé wuñ ko yëf yi day magga de kon al ihdaasiyatul irfaniya tur yi ma doon wax li tax li tax ñu yor ko mané moy shabakatun mubarmajatun bi waasitatil adkaari wal awradi tuhilu ila nasaqin ma'rifiyyin wifqa mansuumatil asma'i was sifat tur yoyu sufiyanke di jox dongaya dafa am lu muy def ci ñom day day tabax ci ñoom nit ku ñuy tuddee al aarif billaah aarif billaahi yenu ay ay paanaki siwoo ki nangam dongo aka bay aka nangam taxut nga doon aarif billaahi de faw ñu connecté la ci ay tur yàlla tur yàlla yoo xam ne day lëkkaloo ak tur yàlla yi ak melok kaanam yi nga xam ne su mbaam da lay wàll léegi jikko loolu moom mënut a ñàkk moom kuy tërbiyee ku nekk te joxewut tur yàlla insha allah bi waa ji dana fa nekk ba màggat du xam sero mën ngaa am ngërëm dem ngërëm ngërëm te ngërëm it sëñ Tuubaa ka ko wax ne ko kii sama soxnaa gërëm naa ko mu ne ko yow yow nag ku la gërëm sëb sëñ bu dee gërëmuñ ko bu la gërëmee ngërëm la fu mu jëm kon Cheikh Mouhamadou Moustapha ci tënk noonu ma wax moo di alfardul jaamia fardul jaamia alfardul jaamia li asraaril asmaa'i wa sifaat المظهر التم بعد عبد الخديم عليه اكبر ايوان الله الباقي القديم مانا سن سن شيخ مصطفى انا سن باتي سن با سو توتي باي سن با سو لو ام سولو خم نغا في دا ماني سن شيخ مصطفى موي الفا بول جامع يا سي اسماء الصفات المثل التم صلى الله عليه وسلم تي موم لا غنا فيس غيناو سن بامبا وايي نك امنا في transit bu amoon sëñ Bànda Saw mag ñi nee ñu sëñ Bànda Saw xutbaa léegi nekk na ci loxoom ab diir soo ko ñëw ci loxoom Cheikh Moustapha foofu lu am solo la sëñ Bànda Saw saw la saw transit jëf yi transit na ci moom de soo ko agsi ci moom foofu it point la bu bu tuuti bu rëy lool bu am solo ci man kon Cheikh Moustapha ab suuf yànkee la woon dara noppaloo jàng alxuraan waaw sëñ Modou Ruqeya moom moo wax loolu nee na moom Cheikh Moussa su ma saa sonn day noppaloo alxuraan xam nga Cheikh Moussa wax nañ ne ci mujj gi sëñ Cheikh Gaïndé Fatma dem ci médecin tubaab bi ñuy xool ko ba xam daal lu ko dal médecin bi ne dara dalu ko daru nelaw mu ne mu ne wax na dëgg de ba sëñ bi fanaanee Touba ak tey fàttaliku ma fu ma gëmmee bët lu ko waral. laataa xusoo si sinatun wala naw ma am na fooy toll foo xamante ne boo nelawee lépp yàqu moo tax du ko sañ kon moom kon moom daana góorgóorlu ci xuus ci secret yi maarifatu billaahi almaarifatu billaahi yi nag bokk almaarifa képp de am na yeneen daara yu yu dul murit yu wax maarifa maarifa moom kooku leneen la maarifa la ñuy tal sam rek nangami yoon nga di ko wedd laa ilaha illa bokkut ak bii de bii almarifatu billah mooy ngay xame ci yàlla ngay xame ci leeru yàlla allah nu son wati wal ard fenkat na fépp sa xool mu fenkat ci sa xol fenkat fépp almarayal wahabiya ni ko ibnu arabiya di di di nag nga mën a capturer nag image yooyu loolu mooy almarifatu billah bokk na ci tegtal yi lay xamal ne Cheikh Modou Moustapha àggoon na ca àggoon nan na ca njobbaxtan la mooy leetar bii mu yónnee woon sëñ Masamba mi mi ngi ci téere bi mi mi ngi ci téere bi sëñ Masamba di ko laaj ne ko waaw yàlla su mayee ab jaam mu wëkkiilu wëkkiilu ko dogu bu dee sàkku déyaale ak boroomam naka lay def def yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndax ndax yonent bi mooy doon dox diggante ak ak borom bi wala moom mbir ma digganteem ak ak la te salaay salaama du ca bokk te salaay salaama kat mooy kerkeraanu jaam ñi jëm ci borom bi waaw ndax salaay salaama day teew booba ca bu dee dee boroomam wa illaa tum naa mu ne ko mu ne ko boo ci xamee dara gaawal gaawal foofu li fi li fi neexaat mooy Cheikh Moustapha gag na yaakaar ci taalibe bi bayam Cheikh Moustapha yaakaar ci taalibe bayam lu am njëriñ la Suleymaan ak ak dongaam ba ba mu bëggee andi asubal xiis mën na koo andi mën naa am mën na koo andi mën naa am waaye ba mu ko soxlaa indi dongaam ba ko andi loolu kon lu am solo la maanaam léegi murit googu bu bu bu jàlloon akay baax waay akay baax waay waaw waaw sëñ bi sëñ Masamba xool leetar ba daal di ne ko tontu li de mooy jaam bi su ko yàlla mayee mu wakkiilu ci yàlla wakkiilu ko dogu ñaari mbir mun mu munu caa ñàkk benn mu nekk kuy sóobu sóobu yàlla su sóobu di tàmbali dox ba wala mu nekk aarif moom bëgg a àgg jëm ci yàlla di deyaaleeg boroomam ba noppi du mooyu sallallahu alayhi wa sallam des na ko dàq rëbb ko tëj buntam yi la la sëñ Moussa Ka wax nag naan Moustapha mënut a jomba way ku koy jomba way buntam la ñuy tëj ba du tuwe sallallahu alayhi wa sallam moom ko ko ko fi ba al mu ne ko mu ne ko nag su du nangu ci moom dara moo xam bari na moo moo xam néew na lu dul ci sallallahu alayhi ci lay sóobu daal di dina ko nag ab jaam du am jege ci boroomam lu may mu jaare ko ci sallallahu alayhi wa sallam daal di ko nag bu dee jaam boobu aarif billaahi la nga xam ne nan lay mel mu ne ko moom aarif billaahi bi day gis salaay salaama ci ay bëtam yàqasatan ci loolu ay nelaw di wax ak moom saa bu ko soobee kooku kooku la sama sàmbari tuddee aarif billaahi mu mooy tooy fi moom fu mu nga soobe muy muy gis boroomam ci xolam nee na ci lu ñuy wax mujaahada ci waxi suufiyanke yi ci ci xaal yépp kon day léeg mu am lu xew diggante moom ak sallallahu alayhi wasallam ci ay deyaale yoo xam ne kenn du ko xam ku yàlla léeg mu wéet ak boroomam wéetaay woo xam ne sallallahu alayhi wasallam day mel ne fekkee ko mu ne ko loolu nag mu ne su ko wuññi ndax lolu mi ngi genn da'atul haqiqa ak sharia man fi la jikka a gisee ne kon haqiqa ak sharia am na leneen man man mom haqiqa ak sharia la xam ndeke kon am na kon leneen mu ne kon lolu ëmb ëmb lañ daal di gene ko borom bi mo waxon wa yakhluqu ma la ta'lamuna dana bind lu ngeen xamut kon mu ne ko nak ak yete baraana boo xam ne loolu dana am ci ci kumali awliyaa yi ci ay ay xawaariq xawaariqul aada ajaib ay kémtaan kal ilhamaat ni ni que dañ mbir yi kusufaat wuñu leen kiiraay yi yi dañ ci andi bay xaalis yi na bi ko suñu fàllu yóbboo màkka ba jox ko dugub lu am solo fàtte naa la yàlla nga am dem dem diwén سيف الله جوكو دوغو بسونا نكو بو ديمي سوتيل مكو جي خاتي مكه يا اك مدينه باي خالي سي نينا بيما نيي بكو نيتلي أن نما دار متوما واخ بانغوي سوتي خاتي يا تونغون كي سا كاو تانك يي ماغي جاكلو موم كوشو كوشو فادي لا كوشو فادي موم لاي لايال والمعرف خم خم يو خمني نيو جي تيري بلا ترجوان بينهم nga xamante ne moom su sunu borom moo xamal mbir mu ne ko nag waaye yooyu yëpp de bu amee ñu xam ne kat mahal ixaani bi ann al amra lam yakun wala yakunu min am yëpp nag te jaarewu ko cent bi yow mu ne kay ashadu an laa ilaha illallah képp taxul nga àgg fii wa ashadu muhammad rasulullah sallallahu alayhi képp tax nga àgg ko kon kon moom sallallahu alayhi wa sallam nga abubakar Shibli al Baghdadi na ko sallallahu alayhi gis koy gis ne ko man day ah mbaa moom li may def ki wut man de bu ma ne laa ilaha illa du ma ci mën a teg keneen mu ne ko mu ne ko boo ne laa ilaha illa maa nga maa nga ca biir ma ne waaw laa ilaha illallah salaay salaam moo ko xamal kon kon sëñ Samba ne ko ndax ndax ndax li anna allaha yafalu ma yashaau wa yaxkumu ma yurid wa yuxkimu wala wa yaxkumu ma yurid wala yukrimu ahadan minhum bi tilka almasiya may yooyu nag du ko may kenn lu may ci barkeb sallallahu taala alayhi wa sallam kon ma maa ngi wax ci ay manaaxibam dara jàppe ko jàppe ko man xaba sëñ sëñ Mbacke Bousso daa dem fii ci Saalum sëñ Cheikh Moukhtar Ka seen dëkk boobu la dem sëñ Cheikh Ka moomu bàyyi sëñ Cheikh Moukhtar Ka yoroon mbindum loxoom sëñ Cheikh Moustapha ab secret mu wan ko sëñ Masamba sëñ sàmba ne ko damaa bëgg nga ma bindal la ko sottil la ko te nga jox ma ndey ji sëñ Masamba sëñ Cheikh ka nangu xam man bu doon a wax dëgg yàlla daal ko ah sëñ bi dafa yàlla nag nga am ëpp na nag doo ma sarax nag ma ko <laughs> di koy sëñ bindal ko ko sottil ko ko jël ndey ja muy bindum Cheikh Moustapha ma bàyyil ko fa bindam bo sëñ Cheikh xam naa comme ca comme ca laayee biir wan la ko kon kon kon kon foofu li fi feeñ mooy sëñ Mbàkke Buso mu tedd mu mag moomee kàngam boobee baay bu tedd boobee sëñ bu tedd boobee ba noppi di barkeelu mbindum loxoom Cheikh Moustapha loolu kon tabar kon la bi asari eh, salihin yaakaar naa kon maa ngi tënk de yaakaar naa moom waxtu wi du jeex moom waaw waaw Cheikh Ibrahima Diop al al al al machari yi ko wax ba yëf yi mettee ata Moustapha badral buduuri mujaddidan wa fajr al huda min janibi wa fajr huda min loolu moom doy na Cheikh Moustapha ba yëf yi mettee moo ñëw yeesal ngir loolu moom loolu moom doy na buñ dëkkee ca Cheikh Abdourahman su Moustapha tudd na ko rek alalawi واخنا لو ام صلو وتشهد ان المصطفى احمد الورى اكابر هذا العصر خطب الاكابر موم كوكا كون موي مبرما ولم يستغل الا بما يكسب العلا على ارسها عن كابين بعد دكابرين لم دون نون كيب موم لا تلاني ياكارنا بو ني ديمي سي كنين كوني واخ ما انت جوب الكوكيو nee na nee na sëtub mu ndumbe la mu ne yamshi ala qadami l ixlaasi munqatian an il wujudi ila l mawjudi si xidami bayit woowu moom a ci gën a neex moom Cheikh Moustapha ma ngay doxe tànk bi sellal ak a néew ci ñi ma xam sellal a néew ci ñi ba noppi nag dogu ci génd bi am gi existence bi mu da ko fàtte ngir yàlla oh lolu sëñ bi waxam ji neexna na yabshi ala qadami al ixlaasi munqatian an il wujudi ila al mawjudi dil qidami hatta qada ku def li mom faw mu muju wa huwa qutb la yumathiluhu fil ilmi wa aw fil jud wal himami kooku mom kon su boba du neexa jot waye nak ina yurun sabaxat xam xabla al wilayati min rabbil bariyati mu lil fadli wal karami loolu moom jiitu na juddu ba kon moom waxam je kon neex na lool xam naa sëñ Moustapha jumbut asaari Cheikh Moustapha yi dama ci andi dara du xaw xat ni Qur'an Cheikh Moustapha ca Taïf buñ joxoon na leen ñaan ngoo xam ne buñ dee buñ dee xat mu moom la ñu xat moo aouzu billahi tamati min sharri ma xalaqa ñett bismillahi la si laay duru masim seen di وسمه علي بنيت اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وهب لنا بجاهه مغفرة عصما وارحمنا وانصرنا واسترنا بستك الجميل يا ولي يا وكيل وعافنا في ديننا ودنيانا واعصمنا من جميع المكاره في الدنيا والآخرة واحم جنابنا عن جميع الفتن والمحن واصلح ما منا ما ظهر وبطن كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بشرا يا الملك والملكوت والعزة والجبروت يا من هو على كل شيء قدير ñetti yoon amin yaa ba amin loolu ab xat mu la si seen ko joxe woon bu dee eh, bisub eh, insulé na muharram bi sëñ Abdul Xadim Mbàkke sëñ Modou Bara ngi mi ngi toog ci moom laa ko dégg woon sëñ Modou Bara mi ma laaj ko ko mu ne ma moo ma woo bés ci magal gi ne ma bindal ab yoor yoor dal di ko koy dicté bismillahi rahmaan rahim ama baad laxad amatu jamal muridina bi sadaqati wa du'a fil yawmi al muwafiq taasi asar min taarix al muharram kon moom nee digal na ci fukki faral juróom ñeent yi ci muharram bi nga xam ne moo dëpp muharram wam sasin ba ndax ndax boobu ci la sunu waaja dellu ca boroomam dal di koy ñaanal ñaanal saxaaba yi ak umma bi ak awliya ak umma bi al aymal mutahidin dal di ne وقراءة آية الكرسي ثمانية مرات جان جان آية الكرسي جملة يون بيتك يا اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد واله وصحبه وهب لشيخنا محمد بن محمد ابن حبيب الله تبارك وتعالى ما نواه لنفسه وهب لأمة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما نواه أحمد بن محمد لهم أبدا آمين يا رب العالمين إني كان أنت الوهاب سبحان ربك رب العزة ما شاء الله سبحانه وتعالى فنوري الإخلاص sa sa sëñ Mourou Bara ne woon naa lii nañ ko bind ay tableau affiche yoo xam ne teg ko ci ci ci penc yi balaa bis ba ku romb man koo jàng man koo capturer ci sa téléphone xam xamaa nag mas naa koy wax benn jànkatu arab jànkatu arab bi nag dañoo xaw a yewati ko moom maanaa léegi ñaan gii ma wax gi allahumma salli wa sallim jooju kooku dem ah matu ko déedéet déedéet bala ngaa xam ne mat na ko euh, wirdul xaatim bii tarjumaan jeg rek laa wax man danaa ci ëf mu sedd kese jàng tarjumaan di dong ci la bokku de arab yii arab yuñ côté la du du yi ku dégg arab arab yi tax taxu si nu mënu mënta seddal dara kii kii arab yuñ côté la ay côté lañ ci def waaye du du arab yi kon moom koo xam ne gëm nga loola jàngi ko nii ko Cheikh Mouhamadul Moustapha ci waxee kon de xanaa sëñ bi kon ëpp lu ma yeesu lu ma salaamaaleykum taala wa barakatu